ñu amal alternance 2024 ñeenteelu édition ndogu débat bi doonoon na ab rox ndoll ci ñuy yëngu ci wàllu politique ak ñi nga xam ne ay citoyen sénégalais lañu naam sax amoon nañu ay gis-gis yu woroo ak ay jëfin yu dëppoowul waaye ñu ànd doon benn ndax ginnaaw bi nga xamante ni askanu Sénégal tànn na président Bassirou jamay Faye ñoom ñëpp dal dinañuy dajaloo ngir waxtaanee ëllëgu Sénégal ak li ñuy xaar ci bile gouvernement. bii paa ñu gis ni génn nañu ci élection yi ñu ne nañu toog waxtaan ci lan mooy attente prioritaire u sénégalais yi lan nga xam ni sénégalais moom moo leen gën a yitteel ci li gën a gaaw pour ñu régler leen ko parce que gis nañ ni bokkuñu woon camp bokkuñu woon gis-gis mais lenn la ñu bokk mooy Sénégal et puisque nous sommes Euh, des citoyens et des citoyennes sénégalaises am nañu suñu mot a dire et discussion yi dinañu permettre ñu arrondir les angles ñu trouver des places de convergence ñu xam ni tamit ñi ngi xalaat mën nañu proposer di ko joxe et comme depuis quatre ans noonu lañu koy defee. gouvernement bu Sénégal boobee sax nag taxawal nañu ko aljuma yem ak juróomi fan ci weeru avril. ci juróom ñaar fukk ministre ak juróom ñeent ya rekk ñoo ci ay soxna lu ñu mel nag ñoom ñi naqarlu nanu ko. gouvernement bi di wax ni seen vision la teg nañu seen gouvernement comme on l'a dit ku ci nekk proposé nga Sénégalais yi choisir nañu di encourager gouvernement bi di wax ni tey politique jeex na résultat la ñuy xaar liggéey la ñuy xaar lenn rek li ñuy ñaawlu et de manière personnelle mooy jigéen ñi peut-être waroon nañ ci gën a ëpp donc là ñu leen di sensibiliser di leen wax ni en fait population sénégalaise góor ak jigéen la du des débats de du des débats de il la force nañu ay femmes yu compétent yu ñu mën a fal. moom mi nga xam ne moo amal bi de ndogu débat dal dinay rafetlu ni ko askan bi moomalee boppam yile waxtaan nag bu jeexee lépp luy recommandation bu fi tukkee dinañu ko jébbal kilifa réew mi.